waaye jàpp naa ne am na kilifa bu fekkee ni nit dalaa wax dama ci yow laa bokk ba pare di tooñ kërub jàmbur kilifa yee sax war nañ ko woo ba mu ñëw ne ko bàyyil ñii dëgg la ndax fitna kat yàlla rëbb na ku ko yëkkati te pas-pasu jàmbur kenn du ca dox mbaa nga di ca wax jàpp naa ne bu ñu demee ba vingt amul lu ñuy jàngal mbaa ñu diñu ko fàttali lu dul lu tubaab bi noté suñu sëriñ wala loo xam ne ni xamuñu ko woon démb ñu bëgg ko indi bees loolu ay nar mënu ko weesu mënu ñoo jàngal itam ci lislaam loo xam ne nii mën nañ ko fee jàng ginnaaw bi ñu juddoo ba léegi jàng fi lu ñu xamut loolu mooy jàpp naa ne kon la sëñ Tuubaa waxoon ne xam-xam du ay riwaay yu ñu bari yu nettali waaye leer gu ñuy jëfee lay doon mm-hmm. sëñ Ablaye tey bu ñëwee ci archive mm-hmm. ma bëgg nga tàmbalee ko jataay bi mm-hmm. le 28 avril 1916 euh, décision bi nga xam ne nii euh, euh, dégg nga moom la ñu wax le 28 avril 1916 Ahmadou Bamba nommé membre du commité consultatif uh-huh. des affaires musulmans uh-huh. loolu foofu diggante boobu laa bëggoon uh-huh. nga ñëw ci leeral ñu leetar boobu ci tënk mën nañoo joxe sax tur yi ña ko bind si ña ko waaye duñ wax sëñ Tuubaa fi mu nekkoon ba pare bisimilah waaw kay xam nga sëñ Xaamidoun jërëjëf ñu ngi lay sant ñu ngi sant sunu jàmbaar ji mm-hmm. Cheikh Mouhamadul Bachir mm-hmm. sëriñ Abdoul Khadr ñu ngi ñaan sunu borom yàggal ko lool mm-hmm. bëgg yoon wi la ku sagal yoon wi la ku rafet xam-xam la mm-hmm. ku rafet ay teggin la yàlla na ko yàlla sàmm euh, sëñ Hamidou yoon wi ci boppam moo toll foo xam ni faw ñu xaar yi ŋàññi mm-hmm. dina jóge fu nekk mm-hmm. ndax ku la jéem a dab te mënulaa dab day def lu mu for sànni la ko waaw waaye nag sëriñ bi dëgg la dafa waajal boppam ci lépp lu jiitu tey xamoon na ni xaj yi dinañu baw Mm-hmm. xamoon na loolu. Mm-hmm. waaw sëñ Tuuba xamoon na ni xaj yi dinañu toog di baw. bisa ngi ñëw daañu baw. daañu baw moo tax mu teel koo wax dani jihaadiyan qada mm-hmm. wa bayi rabiha wali siwaayo kull kalbin nabaxa waaw ah, kull kalbin nabaxa waaw ah, sëñ Tuuba nee na jihaadiyan qada xeex bi ma demoon ak tubaab bi muy sama jihaad bi ci yoonu yàlla nee na xada jeex na jihaad inqada mhm. maanaam jeex na limité wu na c'est fini mhm. jihaad yanqada wa bay'i rabiha li ma doon jaayanteeg yàlla mi am njëg lu ma jox mhm. ma am njëg lu ma ko jox yàlla mi ma doon jaayanteel yàlla fay na ma loo xam dama ci tonne yu bénéfice rek moo ma dese ay faveur rek la ma yàlla jox jihaad yanqada wa bay'i rabiha wali siwaaye nag kullu kalbin nabaxa ku dul man sax fi ne nii di gis xaj ji di mbaw waaye xaj yooyu di mbaw hmm. keneen la ñuy mbaw ku dul man waaye du agsi ci man mu dëgg la ndax sama lépp dama koo xamal hmm. dama xam sama ëllëg ba waajal ko teg ko tegal leen ko hmm. sëñ Tuubaa li tax mu wuteeg ñëpp dafa jàkkaarloog fii ba ñuy lem dénd bi li war a xew da koo jàkkaarloog moom dafa am taalibeem ba ñuy wax sëñ Baara Gay Fatim Mbodj ku baax moo jul sëñ Moustapha Gay ca Daarul Xuddoos jëwrinu sëñ Moodu Moustapha ju mag ja ñu ngi ziyaare sëñ Xaadim Gay sëriñ Baara Gaye Fatim Mbodj sëñ bi da koo mës di bindloo. Mhm. mu am lu mu koy bindal. mbind ma nag xaw a takk ko bari lool. Mhm. mu yeex caa noppi ndeke dafa tawat tawat tax mu nu koo àggale. Mhm. ba sëriñ bi woo ko soññ ko ni ko foo toll ca mbind ma. mu ni ko mbàkkee nu ngi yéene woon mu gaaw àgg waaye tawatanu tëral boobu ba léegi. sëñ Tuubaa ni sëñ Baara Gaye Fatim Mbodj mu ni ko mbàkkee mu ne ko neel tawat bàyyil taalibe jàmbur. neel tawat bàyyil taalibe jàmbur. sëñ Baara Gaye Fatim Mbodj ni ko tawat. bàyyil taalibe jàmbur tawat ga tàggook moom sëñ bi muuñ ni ko tey jii nga ñëwee di ma jàmbat sa tawat li tey jii la woon sa dig tey nga waroon a wàcc liggéey waaye bis ni ki tey amaat nga fanweeri at yooyu dundaat ci sa dund ci sababu liggéeyal ma ci nga ko amee sëñ Xaamidun kuy jàkkaarloog ëllëg mën a fàggul say taalibe ñaata at ngeen di dund ci lépp rek coobare sunu borom mën a wax sa taari taalibe diw ak diw yéenay bokk bis bi ngeen di génn àdduna mhm. waxoon na ko sëñ Mamar mhm. Absa Lo mhm. ak maam Thierno ak sëñ Daam Abdourahmane Lo waxoon na ko Cheikh Bamba baa Siise ca Saalum ak sëñ mu Mandumbe Xabbaan waxoon na ko maam Cheikh Anta ak sëñ Afiye mën naa ci lim ñu bari diw ak diw yéenay bokk weer diw ak diw yéenay bokk bis sëñ diw ak diw mhm. di nga mhm. dund nangam ci ay at jàkkaarloo mhm. comme ni yenant bi alayhi salaatu wasalaam daan ko defale ay saabaam kooku jàkkaarloo nag ëllëgam koo xam ni bu weeru koor di dikk da koy tànn ni ko maa ngi ñëw suy dem ni ko maa ngi dem mu koy gàttandu di wax mu ngi ñëw nga xam ni nit ñi woor nanu te ñu am pas-pas la ñu am xam-xam am diine xam yan mu jóom sëriñ bi ni leen tey du bisu koor ñu jaaxle ca lool mun dem leen jën naa ne ndox te tey du bisu ko bañ demee ba ci ëllëg sa muy door a feeñ mu ni saytaane iblis ci boppam moo jëloon geenam def ko mu mel ni weer yi mu wan leen ko da leen nax ku mën a xàmmee iblis ni muy jëlee geenam di ko def mu mel ni weer ca kaw asamaan ah mhm. man ko xam ci asamaan di wax weer waa ngi may tàggu mhm. nee na mu ngi dem weer waa ngi may tàggu nee na mu ngi ñëw mhm. waaw kooka di nga di nga dem ba ab tubaab di la ci jox ndigal naan la wooral ak wor ak fi sëriñ Touba. Mhm. waxeek tubaab bi lu ma tam préciser mooy loolu. Mhm. da dem ci xasida sañ Touba gu ñuy wax. Mhm. yaa jumlatan. qad sallasu bi dalalihim man lam yakun lahu waladun aw waalidu. axrajtumuuni naatiqiina bi annani abdul ilaahi. xam nga nii moo garaaw. axrajtumuuni waaw dafa garaaw. dégg nga wax. yéen a ma génne bi mu koy wax mu ngi jàkkaarloog ñoom kooku dàgg sante la daal jàkkaarloog ñoom. axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilah wa innani la mujaahidu wa zannantumu anna al madafia indana wal kullu minkum zu qillan wa yuxaasidu fa maqaalukum inni ujaahidu saadiqun inni li wajhi llahi jalla ujaahidu inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa abdan qadiman wal muhayminu shaahidu lii ku ragal da ko wax kuy jël ndigal ci tubaab du wax lii tubaab sëñ Tuubaa mi jàkkaarloog tubaab bi mel ni ku jàkkaarloog ñoom di leen joxar bi mm-hmm. ni leen yéen ñi nga xam ni da ngeen di bokkaale yàlla di ko wutal yat mm-hmm. ñooñu mooy ñan tubaab bi ce sont les gens de la Trinité mm-hmm. lan mooy signifier les gens de la Trinité mooy les gens ki associent jë en disant que Dieu est trois ah ils prônent la Trinité de Dieu au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit dañoo gëm ne yàlla yat la ñooñu la sëñ Touba di waxal muy nasaraan bi koy génne ni leen yéen ñi nga xam ni seen ignorance seen réer seen cànkute moo tax ngeen di waxal yàlla ni ko yàlla ñett la di wutal yàlla doom di wutal yàlla soxna yéen laay waxal yéen ni leen yéen ak may génne man sëñ Touba te dara taxul ngeen may génne lu dul wéetal gi ma wéetal yàlla duma ko bokkaale kenn dara taxul ngeen may génne lu dul li ma gëm ne yenant bi képp laay roy du roy keneen yéen ak may génne di wax ni damaa denc ay ngànnaay pour jihad ak yéen guerre sainte fekk na waa wax ngeen dëgg nee na ragaluma li ma wax kuy jihad day jël ay ngànnaay man sama ngànnaay mooy tawxiid wéetal yàlla ci la sëñ Tuubaa nekk man sama ngànnaay mooy sunna si yanant bi alayhi salaatu wasalaam ujaddidu tawxiida wal furuuca maa tasawufin hawa buruuca mu ngo maa maa ñëw ngir yeesal tawxiid muy gëm yàlla nga xam duñ ko bokkaaleeg dara yeesal bànqaasu xam-xam yépp yeesal sunna ju yenant bi alayhi salaatu wasalaam ni man fii laa nekk duma bokkaale ak yàlla sama borom kenn sëñ xaamidun bu sëriñ Tuubaa doon négocier ak tubaab wala mu leen di bàyyi xel duñ ko jox lettre am entreprise wu ji wut ndar mu yebal rakkam dafa am loo xam soo koy wax ci réew mi te xamoo histoire c'est paradoxal mais nag heureusement ba ma xamee ni il n'est pas un professeur ki wax wax ji il n'est pas un professeur hier mhm. j'ai eu au téléphone ah waxoon naa ko fi quelqu'un qui le connaît bien koo xam ni il a travaillé avec lui ensemble mhm. kookoo ma xamal ni ma moom loolu du domaine am sax mhm. moom na dem ca wàllu fële ca impôt domaine loolu mooy domaine am du professeur moo tax les bêtises qu'il la commises dangay xam ci biir waxam ni ce n'est pas un professeur qui parle li mu wax c'est paradoxal dafa amul benn cëslaay ci boo delloo ci archive bu dee ci lay waxee moom archive archive laay bëgg a ñëw jàngal leen lettres yi xewoon mhm. en 1916 mhm. en 1919 ak li tubaab bi bind nga xam ne tubaab bi moom gëmul sëñ Tuuba mhm. ndax ñàkk koo gëm moo tax ñu génne ko ci biir peuple am ñàkk koo gëm moo tax ñu génne ko ci réewam kon suñuy bindaat dañuy bind la ñu gis te constaté ko ñoom tubaab boobu soriwu lettre bi le 28 avril 1916 ci njaal benn gi rek 1916 dani sëñ daam nan ma affiché lettre bi bu sëñ Ablaye di di di di di di ko liir ndax lépp dafa war a leer ah archi euh, leeral ma euh, euh, lettre bi bi mu tàmbalee ci le 16 avril. Le par décision du 28 avril. Mmh. décision 1916. Mm-hmm. tubaab bee bind de man bindu ma. Mm-hmm. moom mii wax bindul. Mm-hmm. waxi tubaab bi laay wax nii. waaw archive it la ñuy wax. mu ngi nii mu ngi nii. bismillah 28 avril 1916. Mmh. par décision. du 28 avril 1916, Ahmadou Bamba est nommé membre du comité consultatif des affaires musulmanes de l'AOF. mais il n'a jamais participé aux réunions de sa comité. lii lii lii weddi ko te soree ko. dañ ñoom bi ñu jëlee seen décision le 28 avril 1916. ñoom waa AOF AOF mooy Afrique occidentale française. Mhm. ñu créé ko. en 1895 ñi xam archive nag laa xam histoire ñu ngi may dégg. AOF ñu ngi ko taxawal. 1895. AOF mii yebaloon nañ fi ko ñuy wax Jean Baptiste Sodié. Mhm. mu ñëw toogal fi par intérim Louis Moutet. 1895 mhm. la naître mooy Afrique occidentale française mhm. nga xam ne boobu réewi Afrique yépp yi làkk jëfandikoo làmmeñu tubaab français. wala tubaab yi nekk seen territoire. coloniser leen coloniser leen mhm. ñoom ñëpp ci la ñu lëkkaloo. 1916 mhm. nag le 28 avril bul dem bul dindi lettre bi. Mhm. dañu wax ni. jël nañu décision fal Serigne Touba. boole ko mu nekk membre. mooy koo xam day bokk ci ñi nga xam ni ñooy saytu. ak di tëral ak di wut ay décision mu nekk membre. ci ko comité consultatif des affaires musulmanes. Mhm. lépp luy laalati diiney islaam mhm. ñoom ñi nga xam ne ay kàngam lañu ak ñeneen ñu mel ni moom. Mhm. ndax damay bañ a àgg ca suuf. di tooñ kilifa jàmbur seeni tur a ngi ci. tur yu bare ngi ci. boole nañ ci Cheikh Ahmadou Bamba comme. kenn ci ñoom ku bokk ci membre yi ngir lépp lu ñu saytoo ci diiney islam. ñoom tubaab bi tëral ko fii ci AOF. sëñ Tuubaa di ca addu di ca yëy yàbbi. lan la tontu. mu ni tubaab bi ni li ma seetlu mooy. Mhm. sañ Touba mi ñu fal il n'a jamais participé aux réunions de ce comité mësta teew ci seen réunion sax faf mësta teew ci réunion mësta teew. waaw kuñ ñi la boole nañ la ci nàngam mësoo faa teg sa tànk mësoo faa yónni sa ndaw boole woo ci sa bopp kon kooku tubaab du la jox ndigal ci lu toll ni sag jaamu yàlla. Mhm. <laughs> sag jaamu yàlla ni mu toll. Mhm. nga koy déglu ci tubaab. xoolal sëñ Hamidou. mu ngi nii. par décision du 28 avril 1916, mmh. Ahmadou Bamba est nommé membre du comité consultatif des affaires musulmanes de l'AEF. Mhm. Il n'a jamais participé aux réunions de ce comité. Mhm. Gouvernement général mhm. de l'Afrique occidentale française. Service des affaires civiles. lettre baa ngi nii. République française liberté égalité fraternité. Dakar 28 avril 1916. nga xam ne ñoom bu ñu demee ba càmbar seen mbir. dañ koy bind mu àggee ba sa président bu France. ku bañ dañ ko fay bind diw bañ na mhm. ku nangu ñun la diw nangu na mhm. te bi ñuy boole ci sëñ tuubaa ci comité bii mhm. muy comité consultatif de affaires musulmanes de l'AOF moog ay naataangoom yu bari lañ ci boole ñu ni sëñ Touba mosu faa séqi jéego teg fa tànk wuyuñu du ci yëy du ci yàbbi waaw koo xam ne li aju ci diine sax buñ la ci woowee ñoom tubaab bi doo ci yëy doo ci bi waaw kooku ana nan <laughs> ngay dégloo ci sa weeru koor wuy feeñ wala sa weeru koor wuy tàggoo loolu ci dégloo te ñëpp nangul la te ñëpp nangul la ne ñëpp moom la ñu doxale suñu digg ak yow moom lañu fal moom la ñu fal mu bañ gàntal ni la assisté wul ni duma ci dem xam nga li paradoxal ci waxam ji dafa bari <laughs> koo xam ne tey bu fekkoon tey dangay ngay négocier ak tubaab mais doo génn Sénégal da ngay toog négocier léegi waxal ma bayit wi xostu min maliki bi xayril baraaya waaw xayra nasrin ala al ida binqilaabi waaw nee na xustu làq na fu ma làqe min maaliki mu ni min maaliki ci yàlla sama borom laa làqe kon kenn mayul sëñ Tuubaa lu wér yàllaa ko may bi xayril baraaya ci loo xam ni nag maa ngi ko jaare ci ngën gi mbindéef muy yanante bi alayhi salaatu wasalaam xayra na xam naa ni nag moom dong nag mhm. la kenn mënta làq dara ci yàlla te doo jaar ci portam mhm. kon ci moom laa jaare jële ci yàlla sama borom. Mhm. lu ma fa jële mhm. lu ma fa jële mu ni xayra nasrin xayra nasrin ngeen gi ndimbal yàlla nee na su ma leen dimbalee kenn mënu leen a noon mhm. kenn mënu leen a dévier te man yàlla may dimbali jaam bu nekk ci li ma gërëm alal hidaat bin amee naa dégg nga ngën gi ndimbal ci yàlla sama borom jaare ko ci ngën gi bindeef alal hidaat bin xilaa bi nga dégg nga ci notu tubaab bi ci notuk tubaab bi wala wëlbatiku jëm ci seen mbir mhm. nga xam ne loolu dama sëbbax ndiku waaw sëbbax ndiku dem di ànd ak ñoom du ma dal mukk ndax yàllaa ma dimbali boppam ba soxlaalu ma dara tubaab di wëlbatiku dem ci ma kon loolu mooy liberté totale liberté totale ko mooy indépendance amee naa ndimbalu yàlla sama borom jaare ko ci yanant bi mu jox mhm. ma defal ma ndimbal ju tax mhm. du ma dem mukk di def recours ci tubaab bi wala ma leen di dëkk ma li ci dara dañoo jaar penku ma jaar so eh, damaa jaar penku ñoom ñu jaar sow man na bil ilmi wal mu naa ma baqaa in bill si lay sa yantami lin si laa bi waaw dégg man na bil ilmi waaw man na bil ilmi moom moomu nag xéewale na ma ci xam-xam ndax xam-xam bi gën a wér mooy xam-xam bi la yàlla jox mhm. sëñ Tuubaa ni ngën ci xam-xam yàlla xéewale na ma waaw wal mu naa ak tam mébét li may mébét di ko bëgg sama diggante yàlla ci wàllu xéewal jox na ma ko maa baqaa in ak des nga desangoo du fi jóge sëñ Tuubaa mbiram dafa am éternité nga xam ne tey jii feek lislaam di fi sax kenn mënu fee jëlee islam mënoo fee jëlee mbirum sañ Touba sëñ Bas wax na ko ci waxam. Mhm. waaw nee na moom dañuy sonn rek. waaye ku yàlla fal kenn mënu ko fee jëlee. billa si lay sa yantami leen si laa bi. waaw ko maa ngi ko amee nag ci darajay ki nga xam ni. yanantu bi alayhi salaatu mhm. kenn du ko jox dara ci darajaam di ko sëlbuwaat di ko nangu. xam nga léeg-léeg jox la dara mere la nanguwaat. Mhm. waaye man dama amee ci ki nga xam ni bu la xasee ba jox dootu ko xool <laughs> kooku bokkut ak kenn. ak desam. waaw si ñëpp daal ñu ñëwaat ci deuxième lettre bi. waaw yaa ñëw nga ci première lettre bi ñëw nga indi nga leeral ci ne mboolem kilifa diine yi waxuma yi nekkoon senegal waaw mais yi nekkoon ci Afrique. bi nga xam ne Afrique waaw mm. tubaab yee leen colonisé woon. ñoo bindoon nommé Serigne Touba. waaw tubaab bind noonu. waaw mu beneen moo ne bi tubaab bi sax décoré na ko mu nangu. waaw loolu la wax. waaw léegi loolu li may léegi nag ginnaaw boo liiree lettre bi ca suuf. waaw sëñ daam am na boo xam dana ko affiché. waaw sa suuf gouverneur ci boppam moo bind ni rapport bi biñ ko bindal. te gouverneur bindal ko ko. mooy sëñ Touba rejeté na. Hmm. li nga xam ne ni mooy liñ ko doon jox ndax sàmmonteeg diineem. waaw leeral baa nga noonu sëñ Dame. xam nga waaw aywa. xam nga lislaam mhm. dafa may yonent bi alayhi salaatu sax. Mhm. may na ko mu maslaa. Mhm. ci li mu war a maslaa. mais maslaa dafa am fu saa bu naree tàbbi ci sa pas-pas. wala ci sa ngëm. kooku da nga koy repousser ak koo mën a doon. Mm-hmm. ba dee gëm nga yàlla da ngay repousser mm-hmm. bépp maslaa boo xam ne day dugg ci sa diine dañ mm-hmm. Musaa Ka dafa wax ni du bëgg du bañ du faale lu dul boroomam dañ Tuubaa bëggam ak bañam lépp ci yàllaay tax suy bëgg mbir yàllaay tax mu bëgg ko suy bañ mbirit yàllaay tax mu bañ ko léegi nag lettre bi moom li li ko juumloo dafa comprendre lettre bi moo tax man la su ñee ma c'est un professeur mhm. da lay jaaxal comprendre trop parce que daa mel ni moom jaarngul archive wala boog mhm. day waxe xol rek mhm. te xoolul bu baax euh, colonie du Sénégal cercle du Bawol république française liberté égalité fraternité Diourbel le 14 janvier 1919 ci la li amoon numéro bi mën naa ko jox référence mu ngi nii 563 l'administrateur commandant de cercle du Baol. Mhm. sëñ Dame ana lettre bi gaaw. dégg nga na na na mooy bind à monsieur ubbi ko ba mu leer le lieutenant gouverneur du Sénégal. Mhm. gouverneur Sénégal lay bind. Mhm. Saint-Louis. mu ni ko j'ai l'honneur de vous rendre compte. que j'ai remis à Ahmadou Bamba. le diplôme et la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Ce marabout, Seigneur m'a d'abord déclaré que je pouvais conserver l'insigne et que le diplôme lui suffisait, que c'était un bon mmh. certificat mmh. montrant que le gouverneur était satisfait de lui mmh. et qu'il était heureux de cette marque de faveur. J'ai décidé, ah, qu'Ahmadou Bamba, j'ai décidé, Ahmadou Bamba, a accepté également la croix qu'il ne portera certainement jamais, disant que les principes religieux, mhm. dégg nga Euh, si s'y oppose mhm. dégg nga m'a-t-il dit s'y oppose mhm. lan la wax mhm. dani man maa yëgal man man administrateur bi nga xam ni maa jiite commandant de cercle bu bu Diourbel bu Bawol Bawol moo ëmb loolu lépp di ko bind à monsieur le naa gouverneur du senegal di ko jox rapport bii mu leer nañ Saint-Louis mu ni dama lay xamal yow ci sa màggaay ak sa mbaax maa ngi lay xamal mhm. di la yëgal ni jox naa Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul mhm. benn diplôme mhm. gis ngeen ñi ñëpp dañuy recevoir diplôme léeg-léeg ma ni sañ Xaamidun daal dëgg-dëgg li nga liggéeyal sa réew wala li nga liggéeyal nit ku ñuul mérité nga am diplôme ci ko la tuumaaloon tooñ la génn sa réew nga xam dalaa tuumaaloon sosal la tooñ la su demaatee ba reconnaître yow sa sa may di la tàgge nu nekk jël diplôme ni ñoo la ko décerné diplôme da nga ko war a nangu ci lislaam ni kon jox nañu sëñ Tuubaa benn diplôme waaye joxaal nañ ko benn croix nag ku ne xam na ni croix bokkul ci mbirum ku gëm yàlla ndax yàlla bi muy wax sax yonent yàlla Isaa ci sóotu nisaa yi dani kenn rayu ko kenn sëlbuu ko waaw wa maa xatalu wa maa salabu walakin subelum kenn euh, sëlbuu ko kenn crucifié wu ko mhm. la la crucifix mu ngi fexe ba crucifixion fekk nit mu weddi dara xay na am na lu fi euh, inquisition daan def am na lu ñuy wax l'inquisition mhm. à l'époque ñi xam histoire xam nañ li ma wax mhm. nga xam dañu daan yóbbu au gibet mhm. yaa ce qu'on appelle la guillotine képp ku mës a weddi loo xam ni dafa dëppoo ak la Bible dañu lay pendre daal lay sëlbu rey la reyinu ñaaw rey nañ ci ay milliers de personnes ay savants ki boroom xam-xam léegi nag ku ñu crucifié rey la noonu mooy dañ laa yóbbu au gibet kooku ñu rayee noonu nag loolu mooy def ko crucifixion la crucifixion nag mooy loolu nga xam ni mooy wane nii di def croix xam nga bokkul ci suñu diine parce que day saxal ni Isaa dañ koo ray ci crucifixion rayee ko noonu yàlla ni dama koo yéegee kenn rayu ko kenn sëlbu ko boobu pas-pas jullitu ko am comme nag croix la ñu indi boole koog diplôme buy wane ni Sëñ Tuubaa xam nañ am na mérite ci li mu liggéeyal nit ku ñu liggéeyal ko réewam ci bañ ak ci dox ci indépendance am kenn mësu koo defal dara mu nangu ko lu dul yàlla boromam ñoo la jox diplôme bi jox la croix bi mu me chevalier de légion d'honneur la woon ñu jox ko ko sëñ Tuubaa ni man naa nangu diplôme dégg nga wax lettre bi laa lay firil de m'a d'abord déclaré que je pouvais conserver l'insigne et que le diplôme lui na nangu diplôme bi ndax loolu day wane ni nit ku nekk war ngaa liggéeyal sa réew ci sa empreinte bañu ñu tappal la raaya mhm. kon diplôme bi baax na mhm. ndax dara lu ñaaw nekku mhm. waaye nag croix bi moom sëñ Tuubaa ni mukk duma ko laal ndax les principes de ma religion si opposent samay gëm-gëm samay pas-pasu diine ji ma bokk muy islam moo ko bañ dafa bañ loolu duma ko jël lii lettre la boo xam ñoom mënuñu koo bañ defe naa ko doon négocier tubaab du la jox ci yooyu jamono ngay tiit yaakaar naa soo wëlbatee nële sax waaw ci suuf am beneen lettre bu sëñ daam sëñ daam affiché ko bi ci suuf waaw euh, budul bii wëlbatiwaatal nii jàpp naa ne euh, mi ngi nii ana mu sëñ daam mooy bi bu mujj bi waaw gouverneur bi gën na cee gën na gën na ko préciser waaw euh, sëñ daam mooy bu mujj bi jàpp naa ne moom ci boppam moo ko bindalaat boppam leeralal ko boppam waaw est-ce que du bi ci bi bi ci suuf nii waaw bindaat na ko waaw moo nekk nii j'ai l'honneur de vous faire connaître mi ngi noonu que monsieur le lieutenant gouverneur beneen bu mujj bi la sëñ daam waaw bi ci suuf du Sénégal vient de me rendre compte de la remise de la croix de la Légion d'honneur au Serigne Ahmadou Bamba Mbacké à Diourbel mm-hmm. tout en déclarant que ses principes religieux lui interdisent le port de la décoration mm-hmm. ci obtenir dégg nga mm-hmm. na ko diine moom sëñ Touba day na xamal ni sama diine moo nanguut lool du ma ko jël mi ngi nii mu ngoog waaw lettre baa ngi lii tubaab bi ko bind ñun binduñu ko bu ko sëñ Massamba Mbacké bindoon ñun li muy rakkam la bu ko sëñ Moussa Ka bindoon ñu li muy taalib bi mu su ko ab taalibi sëñ Tuubaa bindoo ñu ne ah mm-hmm. léegi noonu sëñ Tuubaa bi ko génne woon moo bindi lii mu ngi ci archive it boo demee ci Cheikh Ahmad Bamba et les archives da ko fa fekk bu dee yow da ngay wër archive mm-hmm. j'ai l'honneur mm-hmm. gënoo ñoo dégg tubaab nag da nga def attention gënoo ñoo dégg tubaab <laughs> j'ai l'honneur de vous faire connaître que monsieur le lieutenant gouverneur du Sénégal vient de me rendre compte de la remise de la croix de la Légion d'honneur au Serigne Ahmadou Bamba à Diourbel tout en déclarant que ses principes religieux lui interdisaient le port de la décoration qu'il obtenait le marabout a témoigné de son entière satisfaction pour le pour la marque de faveur que lui donnait le gouvernement de la de la République dégg nga mu ngi nii maa am tawféex am loolu ndam ci di la yëgal yow leet naa bi nga xam ni mm-hmm. yaay liet naa gouverneur bu Sénégal mm-hmm. di la yëgal ni jël nañu croix bi nga waxoon jox ko sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba bi ci Jurbel mm-hmm. mu nekkoon signe bu ñu koy jox di ko tappal pour wan ko ni dañoo bég ci liggéeyam ak yëngoom waaye sëriñ bi dañu ko delloo yëgal ñu ni diine ji mu yaakaar muy diine islaam ak sang bi mu yaakaar muy yenant bi alayhi salaatu wasalaam dañoo tere mhm. lépp lu jëm ci luy opposé wu ci seen pas-pas muy yor croix mhm. moo tax croix boobu du ko nangu mukk te du ko delloo ni kooku mën ngeen ko téye duma ko laal mhm. la aju nag ci wàllu diplôme buy wane ni liggéeyal naa sama réew te citoyen laa ci sama réew kooku nangu naa ko ngir kooku sama diine nangu na ma masalaayu noonu ci lu rafet loo xam day soññi sama ëllëgu réew ngir ñu fonk seen réew liggéeyal waaye li jëm nag ci wàllu croix duma ko jël mukk man sëñ Tuubaa ndax croix dafa opposé wu ci sama diine di diine islam Mm-hmm. fii la sëñ Tuubaa nekk. fii la nekk li fii la nekk. Mm-hmm. mu ngi nii Génier ah. li tubaab bi ko bind. signé mm-hmm. Azul. Engoulevent. waaw ah, Engoulevent Engoulevent mooy tubaab bi. waaw ah, mooy tubaab bi. Ah, waaw moo ko bindal boppam. kon gouverneur bii moo ko bindal boppam gouverneur Engoulevent moo ko bindal boppam. waaw lii lu ko gën a leer amul. lii moom bindewuñ ko Sénégal. waaw léegi nag kon buñ ñu sonal. Serigne Touba buñ ñu sonal léegi sa Ablaye lii lan xam nga lu koy dëggal waaw wa zikru rabbi zil jalal waaw alalahi daaka haydari wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaw dafa mel ni gaynde dafa meloon ni gaynde ci noon yi mhm. ni yanant bi meloon waaw ah, ni sëñ Touba dafa doon na yanant bi mhm. loo tuumaal sëñ Touba yaa ngi koy tuumaal yanant bi ndax sëñ Touba moyul yanant bi ci dara mhm. dafa te sëñ Touba taalibe bi bi la te làkk nañ ngërëmu yanant bi mhm. te yanant bi la doon liggéeyal mhm. kon loo koy waxal ci lu ñaaw rek yow da ngaa mel da ngaa xeeb diine islam mhm. yow li nga njëkk a def mooy xeeb islam soo xeebee leaderu islaam yow yaa ngi xeeb islam ndax sëñ Tuubaa li mu am yanant bi moo ko jox neen lu ma am Moustapha ma ko jox te moom lay roy te yanant bi daa meloon ni gaynde ci noonu yi weddi yàlla waaw nga xam dem na ba sifa boobu da koo jox melo woowu da koo jox saaba yi àndoon ashiddaaw alal kufaar mhm. waaye ruhamaa u baynahum ñoom mhm. seen diggante dañuy yërëmante mhm. waaye bu ñu gisee ko weddi yàlla duñ la may dara sëñ Tuubaa nii la meloon moo yow ku tubaab di jox ab ndigal ak di la tere am na bis tubaab bi di ñëw ci sëñ Tuubaa fekk sëñ Tuubaa yor daawam di bind ak xalima ci di bind mu ni ko xus kalbaka anil xirtaas maanaam téel sa xaj boobu ci sama këyit yi may binde tubaab bi ni comme sëñ Tuubaa dafa bañ xaj kay gis na lu bañ dañ ko gën a metti tal mm-hmm. ay kilaab ay xaj yu baree baree bari mm-hmm. jal ko sëñ Tuubaa mm-hmm. bi ñëwee rek sëñ Tuubaa dafa càpp ci daaj ji sotti sànni leen ko xaj yi di tàkk ba jeex xaj yi di tàkk ba jeex il faut ñu am lu ñu comprendre te lu mat a xam la nit ñi dañuy wax ñaare waaw bu fekkee sëñ Tuubaa nii la meloon ci tubaab bi lu tax ñu koy génne ñii ñoo dof sëñ Tuubaa loolu la bëgg moom loolu mooy may gi di lim bëggoon lim bëggoon mhm. nekkul loo xam dañ ko ko imposer par force de mhm. dafa fekk ni loolu la bëgg parce que dafa am lu mu bëgg ci yàlla boroomam mhm. te pour mu jot loolu il faut mu jote ko ci noonu yàlla yi génne ko ay at ba natt bi mat mu dóor del si ci réewam mu bëgg wa man yulqini fil bahri raw man li xurbati fa lii min ilaahi kon il faut ñu xam loolu waaye da ngay gis koo xam ne xalaat bu tuuti la am waaye bu leen ñu rey yéen mu di bu fekkee loolu tax sëñ Tuubaa kon tubaab bi di ko génne ah lu tax duñ ko génne te moom mu ñaan ko yàlla boromam ba yàlla nangul ko ko mm-hmm. ni ko li nga war a am ci loolu nga koy amee sababu xaybatiya ann allaaha mm-hmm. araada an anaala minhu jaaha mm-hmm. wa an akoona saafi an li qawmi wa an akoona xaadiman fi dawmi loolu mooy pacte bi pour nga am nangam il faut nga génn dem ci loxol noon bi doo lijjanti fu ñu lay jëmale leen daal la ñu dul may lépp luy opposé sa diine moom doo ko nangoog ñoom fa inni lahu fil bahri fil barri wal baari aabidun mu ngoog xadimun li mun jin min dawaa'i tanaddumi mu ngoog man nekk naa jaamub yàlla sama borom ci géej gi nag ak ci jéeri ji foo man a nekk yàlla laa yaakaar di ko fa jaamu moo may joxal sama xéewal te moo ma ko jox keneen du ma ko jox fii la sëñ Tuubaa nekkoon koo xam ne yow tubaab bu la doon defal dara xanaa dina la dimbalee dara cinquante francs yi ñu koy fay pension du ko laal suul leen lay wax du laal seen dara ilaahi jalla ya diwal qalbu ma badan waaw wasaa xalifa kama inda su lay tiini la la ma sëñ la ma sama borom defal ëpp na la ca buur ya inda su lay tiini la ca buur ya li ma sama borom di wamata la ko ëpp kon man sama loxo ak sama jëmm ak sama yàpp yaram yàlla laa ko jox joxuma ko tubaab joxuma ko ab jaam tam amul benn jaam bu ma jox sama dara yàlla laa ko jox weesuwaat na foofu mhm. yaddi li muxnin karimin naafi in samadi mhm. laali daraa imi taati min su lay tini mhm. sama loxo yàlla laa koy tàllal moo ciy teg waaye rus naa koo tàllal ci koo xam ni dafay jaamu dénga nga koo xam ni dafay dee léegi bala moo yàgg du dara dafay tële waaye yow ku ku doon négocier ak tubaab sëñ sëñ tubaab sëñ euh, Ibrahima Diop Massar dina la wax lii mu la wax laxat aqamta bi ndar xiinan tuzilu biha daa addalaali min ahli shakki wal fanadi déggal loolu fen yi ñu fomante woon ay fen fen mooy fanad fen yi ñu fomante woon ak weddi gi ñu famante woon daal di koy mel ni film teg ko ca seel yu ndar ku ñëw di jéem a xool loo ci plié woo ngir ba ngir sauver sa bakkan yow yaa taxaw ndar dajji fen yooyu sànni julli fa ñaari rakkaa yëkkati islaam laxat aqamta bi ndar xiinan tusilu biha daa a dalaali min ahli shakki wal fanati réer gi nga xam ni ak sikki sàkk gi amoon nga xam nit ñi dem nañ bay xel yaar xamatuñ kuy seen borom ndax ragal tubaab yow yaa ñëw dajji sànni ca biti daal fay wane ne yàlla kenn la julli fa julli gi ñuy fàttali ko ba tey waaw lu tax murid yi daje ndar sëñ Tuubaa mu daarante woon ndar kay rafetal rek dem duñ fa daje tey di fàttali ko julli gu mu def ci bureau gouverneur waaye mhm. waaye nanu arrêté yooyu dafa am loo xam dañ la ciy xame mhm. sëñ Hamidou dañ la ciy mhm. xame rek mhm. xame sa noonu yoonu murit te doo ci am mukk ndam ndax say baay ak say maam sonnoon nañ te ñoo mujj faatu dem ba fi sunu yoonu yi ba ko fi kenn mënu ci dara muy rek muy unigré sëriñ Tuubaa mbiram ca kanam kenn munu ci dara dëgg la ku ci àndul dañuy jaar ci sa kaw sëñ ba soxoon na ko Abdul Xaadir mel ni train bu jaar rek ci yoonam ku bañ sa kaw lay jaar doo ko tere teere ci aljana kenn mënu ci dara dañ la ciy xam rek nañ noppi. Mhm. ñoom ay xale lañ jànguñu dara xamuñu dara. Mhm. yoon wii ñu leen dàq jàng tubaab fuuf fuuf fuuf ñoo ci nekk. Mhm. man de wóor na ma ni mën naa ko jàngal tubaab wallaay la bi mhm. moom mi doon wax wóor na ma ni man mën naa ko jàngal tubaab te loolu ma wax par parloo amu ci mhm. su demoon ci ñi ma xam dëgg-dëgg ñu ne ko xam nga Ablaye Diop Bichri mhm. ma xam dëgg-dëgg ñu ne ko mën na laa jàngal tubaab li ma ci xam xamagu ca genn wàll ka la ma liir liiragul genn wàll ka wallaay la dëgg la li ma liir ci tubaab liiragul genn wàll dëgg la waaw ah, kon nañu baseen yooyu ay complexe rek la ñu sëñ Tuubaa ku ko gëmul waroo xarab dara ci liggéey waaw ah, dafa sauvé nit ku ñuul sauver islam xamuñu dara. Mm-hmm. ñàkk am xam-xam moo tax muy dingat sëriñ bi sëñ Ablaye jërëjëf li nga wax nii dama ko wax léegi ci mbooloo mi jóge dama leen nii nit ñi dañuy faral di tooñ sëriñ bi mm-hmm. liñ koy tooñe mooy dañoo xamagul objective sëriñ bi waaw objectif bu sëriñ bi du woon concurrence déedéet déedéet du woon créer ay daayira ay nit naan ko jébbal naa la sans bopp àddina ak alaaxira doon nit ñi nekk ay dof yoo xam lu ñu liggéey dañ ko koy jox sëñ Tuubaa yittewul woon loolu préparé wul sax ci boppam poos bu ñu koy joxe xaalis sëñ Tuubaa objectif moo nekkoon yërmande yàlla jii mu ëmbal jaam ñi moom la sëñ Tuubaa ëmbal jaam ñi waaye sëñ Hamidou sëñ Hamidou ay millions de personnes mënuñoo bokk ñëpp dof déedéet xam nga raisonnement bii Sénégalais yi am la ñu war bàyyi ñu ci mhm. bari mhm. boog ñu bari ci Sénégal yi boobu raisonnement la ñu war a teg ci suuf yoonu murit mënta boole ay millions de personnes ñëpp di ay dof déedéet ñëpp liggéey mënu leen a jàpp. ñëpp mënuñoo nekk koom ba bañ a xalaat bu nekk ay koom jàngu sëñ daam boo may dégg nga ñëw wala waaye ñu la rawa ci bokk yoonu murit ñu la mën a jàngal mm. fànn boo ñëw ci jàng ñu jàngal la ko pare di raam ci suuf di téye seen alal di jooy bëgg a gis sëriñ bi te loolu yàllaa koy def mm-hmm. bala ngaa sonn nag mooy yàlla ni nàngam nga ni doo ñoo ci taxaw mm-hmm. te gis nga ñooñu amuñu sax importance waruñu leen jox importance li mhm. sëñ Bass Abdou Khadre wax dafa am solo mhm. suñ ko ko nettali woon sax du ko mhm. ne a neex sëñ Ablaye li sëñ mooy ab murid am fulla loolu nag junj doy na boroom xel waa dafay am fulla démb maa ngi koy ziare daf ma woo daa ndeysaan daanu jël wax ma wax joo xam ne bi mu waxee dama xam ne kii pas-pas la waxe xam nga sëñ Seex Fall bàyyub góor du ma àgg sax ca la na mu demee dëgg ndax damay bañ xam nga senegal léegi loo wax mu garaaw. waaw dëgg la. Euh, dafa am at moo xam ni sëñ abdu Sakkour Fall. Mhm. xalif général des bàyyi Fall di doom yi maam Cheikh ma Fall di bàyyi ci moom. Mhm. da koo yónni woon di ko wutloo ay. ay ay ay ay ay ay bant. mu dugg ci àll bi di wuti bant. Mhm. mu defaral ko ci ay mbaar. ñu woowi kilifa gu mag a mu fekk ko ci biir euh, ci biir ci biir àll bi. mu ngi war jiibam di wut ay bant. pour war koo jox sëñ Abdou Sakkour Fall. Cheikh bu Sakor waaw ñu dem mhm. yégale ko kilifa gu mag ci réew mi kilifa mhm. tubaab yu ñuul yi rek mhm. damay bañ jaar ci tur yi kilifa gu mag mu dikk di ko arrêté mu ne ko lan la mu ne ko loo bant yi ngay dagg tax ma ñëw mu ne ko ki nga xam ne moo ma yónni tey dama wutloo bant su soxla woon sa baay ci boppam la muy jëfandikoo su ko soxla woon dinaa ko dagg teg ko ci plate jox ko bala maa ne la si ki yooyu faw mu dellu si <laughs> sa baay la mu yor ba nga tax nga judd yow la mu yor di ko jëfandikoo ba tax nga judd mhm. tey bu ko xalif général des Baye Fall soxla woon bala ma ne la dinaa ko dagg teg ko ci palaat jox ko loolu la ko sëñ Cheikh Fall Baye góor tont gis ngeen nit ñi il faut ñu am farlu sëñ sëñ Moustapha Diop njekk nettali na ma benn ma benn jàngatal ma benn benn benn benn benn benn diggante waaw ci ku ñu ne eh, tubaab bi <laughs> moo ko daan jox muy war a wari mu ànd ak moom juróom-ñaari at waaw ñu teg ay bis ak ay weer mu ñëw Ndakaaru 1902 laataa muy wàcc mu yónni tubaab bi. waaw dëgg-dëgg. nga xam ne moom bi mu wàccee léegi léegi yoon yónni ñu dox kursam. <laughs> wàccal wool ma Cheikh Anta. wàccal demal wool ma maam Cheikh Anta borom. daal mën a jàngat te boobu xuma la yónni tubaab waaye dañoo wax ne ku seen xam nga am na ku ku bañ boppam ba wax ne mag ñi fu ñu a gis tubaab dañuy daw yónni tubaab la ko def. waaw mais moom sëñ Tuubaa dafa wax ne tubaab bi wan naa ko ci géej gi loo xam ni ba àdduna tukki du ko nettali sëñ Tuubaa nee na mag tubaab bi ñu demee teere neutre wan naa ko loo xam ba àdduna yu tukki du ko nettali ci làmmiñam wax na dëgg ndax da na a toroxal duma leen. ba <laughs> ñu ne nem soo amee ko yaree di ko ku réew mu tëkku ci mbooloo mm-hmm. maa la mën. Mm-hmm. nga ne ko sëñ bi tey ngaa tey mu ne maa la mën du ma sa moroom coow li bari. Mm-hmm. nga ne ko nañ dem maag yow maaro loolu lañ daan wax xale nañ dem ci terrain neutre. bu ngeen demee boo mënee dóor ba doyal bu ngeen delsee da nga koy yónn da nga gis moom yi dem dox say course ñu ne ah saa waay foo jaar ak waa ji kii léegi moom nooy na de noonu la ñu fi dem. xam nga bi coow li bare. dani sëñ Touba say mbokk nga nekkal ñu wër la mhm. waaye bis bu ñu génnee fa ma daan yóbbu góor yàlla yi daan fa yóbbu ponkal yi mhm. musuma wax nit defal nangam 24 heures te defu ko sëñ Touba ni ko bañ dem ba ñëw ñu dem ja def ca juróom-ñaari at ñu réer ñu meñ kenn tegatu leen bët ñoom ñaar rek ci géej gi sept ans yi mat sëñ Bamba delsi lam bëggoon ba tey di wéy lam doon wax di wéy ñële di mu daarante mu leen di yónni ñuy dem te ñuy tereetuñ ah waa te góor gi euh, sëñ ma tabara mbay la defe naa góor géwél gi nga xam ni mhm. bi sëñ Touba ñëwee fii Dakar 1919 bi mooy bi ñu koy jox grade bi dañ mhm. ko dañ la koy tappal te sëñ Touba ni leen kon yéen a ngi gërëm ku leen gërëmul <laughs> moo dugg ci gouvernance moo jàkkaarloog sëñ Touba yéen a ngi gërëm ku ku leen gërëmul waaw bi ko waa français yónnee di la gërëm mu ni kon gërëm leen gërëmul sant ngeen ku leen santul man yàlla rek laay gërëm di ko sant keroog góor gi ma tabara mbay moo jug yuuxu di woy sëñ Touba moo ne ko yow Mbàkke bi ñu lay génnee ñëpp dañu woon dootu fi amee te nga ni dina fi amee nga dem ci terrain neutre def fa juróom-ñaari at ñibbisi la nga bëggoon mbàkke ba tey di wéy te kenn mënu la koo tere. Mhm. mbàkke yaa sagal islam yaa yëkkati islam. yaa bégloo tey yanantu bi alayhi salaatu wasalaam bu dul woon yow li islam fay. Mhm. yaa ko yëkkati yaa delsiwaat indi ndam bu jàmm amee yawa yaa nu jox indépendance yaa ko waxoon fii yaa ko def yaa delsi. Mhm. buñ dee ay gor tagg la. mbàkke maa lay tagg fii ci pale di ko tagg ba mu yàgg sëñ Tuubaa gëstu ne ana Seex Anta. mu ni maa way may waaw ah, maam Cheikh Anta ko lu sa xel dem may naa la ci fukk ak ñaar waaw ah, kon nanu gore te sant sëriñ bi moo fi nekk si sëñ Ablaye jërëjëf xam nga Ablaye Mbaye Peex maa ngi koy nuyu day wax wax ju am solo mhm. dañu murit day jàng xasida mhm. di waxtaane sëñ Touba. Mhm. tey naan kafe Touba te ku tooñ yoonu murit nga duma ko loolooy dëgg waaw ah. dafa am baadoo yoo xam doo nekk di négocier ak ñoom bu ñu tooñee yoonu duma leen rek ndax duma moo baax duma moo baax waaw dañoo war a indiwaat ku def lu waru duma la kon murit dafay waxtaane sëñ Touba. Mhm. di naan café Touba. Mhm. di jàng xasaayid yi ku tooñ sëñ Touba nga duma ko loolu mooy dëgg. dëgg la jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop euh, fi nga teg waxtaan wi ak fi nga ko ubbee jeggi na dayoo li am solo nag mooy dégg-dégg. waaw euh, dafa am geste yoo xam sëñ Touba da ko def zaahirement sëñ Abdoulaye. waaw waxuma sax archive. lay sal biru rek. bu buñ ko tekkeen ñu xam ni sëñ tubaa tubaab bee doon daw ci ginnaawam zukooruhum xulfun mas ngaa gis ko woy lii déedéet xam nga li gën a garaaw suñ xaamil xulfun waaw moom loolu la jëfandikoo waaw xam nga lu luy lool mm-hmm. xam nga luy lool li mu wax nee na ñoom seen góor yi du duna jong dama la koy waxal mu leer rek pour ñëpp xam ko <laughs> pour wan la mm-hmm. kuy négocier ak tubaab xam nga à l'époque ñoom dañu amoon tubaab yi ku leen di traduire tout les langues nag wax la mm-hmm. mu ne amoon nañu ay complice tubaab yi amoon nañu ay complice tubaab yi amoon na nañu ay agent secret yu leen di doxal seeni i tubaab yi amoon nañu ay chef de canton tubaab yi amoon nañu ñu bokk ci islam wor islam farak ñoom di leen traduiral ngay xam lépp li xew lettre bu wàcc ñu xam ko balaa guddee jot ñu leeral tubaab bi li nekk lépp ci lettre bi xasida gu ñëw amoon na biro boo xam ne ci ndar xasida gu mës a wàcc dañ koy xool tubaab bi daan xool bind mi lan la kilifa yi bindeeg lu ñu wax Mm. waaw nga dem ci xasida ak sëñ Touba fekk ci sëñ Touba naan yéen tubaab yu ñàkk fulla yi nga xam ni mm. seen góor ñi sax duñu xarafal in lam tatuubu wa tu'inu ah, diina su ngeen tuubul ngeen dellu yàlla sawaraay seen kër insarifoo li yéen du ngeen dara wala qibla naan sàngara ak carte ak wax ju bon mooy seen liggéey duma ànd ak yéen ba faaw dama moo daaranteeg yéen bëgguma leen dama leen a bañ tubaab yi sax perte nañu waaw bii wax ku koy wax ak tubaab ñu koy traduire tubaab tubaab mënalu dara <laughs> jërëjëf sëñ ma sëñ xam naa ne yaa ngi tàngal sama waay yi nga xam ne